asalaamaaleykum internetu Sénégal maa ngi lay nuyu nga bàyyi la nga internet yu ñuy maa ngi lay fay Aïda. Mhm. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp adduna wërngal képp ak ñi nga xam ne internet yi nga xam ne ñu ngi suivre Sénégal. Mhm. si seen liggéey bu rafet bi ñuy def man la El Maestro artiste musicien beatmaker euh, directeur artistique digital euh, musique Digit Prod voilà. maa ngi noonu daal. ah maa ngi ciy def sama kéem kàttan de. waaw mhm. ah, maa ngi maa ngi góorgóorlu bu baax quoi. alors dernièrement gis nañu ngi jël yoonam Saint-Valentin bi ngay préparé wala lan moo tax nga génne clip bi moment bi. waaw euh, clip bi son bi dama ko defoon euh, son mbëggeel la. When I see you. When mhm. euh, pour préparer Saint-Valentin bi. xam nga moment bii la donc waroo je euh, me suis dit que du ma xaar ba jour Saint-Valentin bi jot pour may génne video bi ça sert à dama koy damay imprégner gars yi ci clip bi ba pare ñu xam son bi commencé gis vidéo bi muy daw comme ça le jour ji day gën a actuel quoi gars yi tàmm ko ñii TikTok TikTok ñii ñi ciy foofoo ci. aywa actualité bi nag <laughs> que xam nga sama son moo jig Lions yi. man def naa son ci Lions yi. ah te son boobu depuis bi ma ko génnee ba léegi Lions yi dañuy gañ rek ñu bëri woo nañ ma ne ma yow. macha allah ren gi nga si kan ren la mooy ci match de poule bi gars yëpp découragé ne duñu duñu duñu ñii xam nga Sénégal tamit dafa métti. Mhm. da nga gis euh, peuple bi dafa teg pression musiciens yi ba kenn ñemewul woon way ci gaynde yi mhm. ah ci moment yooyu comme man sportif la en même temps damay football euh, dama ko bëgg quoi. Euh, man ak sama groupe maanaam dama yor sama studio bi ma nekk dama am foofu ay artistes yoo xam ne man maa leen di jàppale. Mm-hmm. maa leen si ci label bi lañ nekk te man maay seen mentor donc euh, ma def benn son ba nga xam ne dama cee rendre hommage Omar Pène euh, ma jël son bu muy wayaat équipe nationale bu Sénégal li ngeen ñu defal neex na ci jaloore ma tëggaat bit bi parce que bit maker laa en même temps. Mm-hmm. ma woo booy ñu way ci muy Baye Cheikh Satou. ak kabayeeri bi nga xam ne moom moo way law la cat subaana ma làmmiñ mm-hmm. ci ci ci man la ne après ñu def son bi rek son bi tàkk instant yi ba canal plus sax gars yi fu ne gars yi teg nañ ko fa. ñu ngi koy ñu ngi koy teg ñu ngi koy teg waaw mm-hmm. la. nga ci ñu jig lion yi. waaw. Mm. waaw ni yéen woowuñu leen de. Hmm? bu ñuy célébrer yéen ci. waaw woowuñu ñu mais man bi may def son bi xaaruma woon ku ma woo parce que je l'ai fait en tant que patriote. parce que man lépp lu may def Sénégal rek dama koy def pour Sénégal duma ci xaar ñu woo ma du ci xaar parce que du foofu du foofu la ñuy jugé nit kii ne aay na wala aayut wala du foofu la ñuy kii mais ma woowoon nag ma jël. parce que sama liggéey laa ne ku ma woowoon damay ñëw parce que je suis te yelloo naa ñu woo ma fa comme tant d'autres artistes yi nga xam ne woo nañ leen fa mais man woowuñu ma saa m'importe peu bu ma bu ma demul. l'essentiel maa ngi focus sama yoon def naa son bi ba pare son bi am na lu muy ampleur bi muy am après c'est fini bu ñu ma woowee baax na bu ñu ma woowee baax na ndax defuma ko woon pour ñu woo ma dama ko def pour lion yi pour gaynde yi pour coupe rendre am nañ coupe loolu rek mbégte la. amul dara lu ma ci frustré wu wax. dëgg fa nga gisee coup de gueule comme Queen Biz yow woyoon nga moom woyoon na keneen ak keneen woyoon na avant lépp di xew. Mhm. mu ne yoo xam ne woyuñu dañoo xaar ba bi am. ñu doogee gis coup de gueule boobu ni amoon nañu waaye ñoo xam ne woowuñu leen ci invité wuñ leen. waaw comme Queen euh, position bi mu nekk ak li tax mu def coup de gueule boobu noonu euh, moom la quoi moom la concerné parce que xaw ma lan la yëg ci xolam ban frustration xeet frustration la yëg ba tax mu wax loolu dañ koy nangul nag ne moom xaw ma kan xaw ma lan nag xaw ma lan mais man xam naa ne patriote la. Mm-hmm. loolu daa xam naa ko ne patriote la parce que saa bu Lions yi di. football moom dina def euh, wayam ba lu ne lañ ko ci yàq Sénégal ba dem ba tey ñëpp naan ah kii am na ndam pour man loolu rek ndam la quoi pour man loolu rek ndam la ñu buñ ko woowoon tamit dañ koo war a woo buñ ko woowul dañ koo war a woo mais peut-être ñi organiser ak ñoom am nañ seeni raison lu tax woowuñu ko peut-être ils sont pas au ils étaient pas au courant parce que genre affaire yu mel noonu duñ duñu maîtriser la chose ñoo ñooy yor affaire yi mi ngi noonu gars yi dañuy xool rek ñi ñuy gis ci kaw ñu woo leen mais ça ne veut pas dire que ñooñu dañu gën a aay wala dañu gën a kii yàlla nag moo maye siiw moom maye autorité euh, euh, notoriété et tout mais n'empêche comme li ma lay wax rek moom li tax mu wax ko xolam la moom la concerné mais man à ce qui me concerne. wax gisoo ci sa bopp yow tamit yow mi non non wax dëgg fa yàlla man. ba ma ca defee laa ca pare ba ma. kii eh, concert ba sax man seetaanu ma ko man maa ngi doon xool yeneen lions yi ni doon fêté affaire yi maa ngi ko doon maa ngi doon savourer victoire bi quoi taluma woon lenn lu ko yàqal wax dëgg que musique si loolu laay ñëwee ci yéen ñi xam ne nekkoo leen ci kaw par exemple di ngeen di def seen moyen def seen euh, te lu mag su ñëwee duñ leen duñ ci woo wala doog duñ leen jàppale comme nu moo. waaw c'est dommage parce que Sénégal moom musique bi on prône la médiocrité parce que li gën a bon la ñuy jël di ko tef ca kaw li ñi nga xam ne am nañ talant doo leen dégg te loolu bu dee xam nga Sénégal euh, musique bi ñu bëri dañuy dañuy toj Sénégal rek foo ne ñi ngi toj alors que mën nga toj Sénégal te tojoo parce que toj Sénégal yomb na da ngay def fii son bu bon gars yi ne booy son bi moo def buzz da ngay Sénégal da def sax son bu baaxul nit ñi nit ñi di ko consommer di di di ko kii xam nga ndax comprendre nga fi may waxee donc kon am ay vues Sénégal wala am bë Sénégal man wax dëgg fa yàlla su ma ko amee jël mais du sama objectif xam nga nag comprendre nga fi may waxee parce que je vise loin je vise à à à exporter la musique sénégalaise au-delà des frontières pour man loolu moo ëpp solo may concurrence fii kenn wala may xëccoo mais xam naa li fi ne xam naa ne gars yi dañuy jël musique sénégalaise bi xool li gën a bon ñu koy wa mettre au devant de la scène parce que il su suffit pas d'avoir euh, euh, ils font la différence entre célébrité et talent célébrité bi bëri na fi mais talent yi moom talent bi nag des na bu bëri loolu nga gis ci musique bi quoi talent bi des na talent bi des na mais mën nga bañ a am talent am entourage bu baax am conseil bu baax am ay ñu am talent ñu nekk sa ginnaaw da ngay dem mhm. parce que américains yi sax dañ koy def dañuy gis ñu nga xam ne du ñu am dañuy am don mais talent bi day des parce que donc talent bi nga bi may waxee koi talent écriture. wala talent way voilà day am ñu voilà day am ñu leen di defal loolu yëpp ñoom ñu ñëw nekk au devant de la scène. kon pour yow artist bu ñuy bindal bu ñuy defaral yëpp yow nga ñëw teg voix rek talent am des na. non euh, mën du ma ne talent am des na parce que ku nekk ak li la yàlla may. man nga mën a woowee artiste boobu nga xam dañ koy bindal son woon. dañ koy tegal mélodie dañuy ñëw rek na ko wayal nii nga ko war a def. na moo ëpp Sénégal loolu. moo ëpp Sénégal dañuy dañ leen di bindal defal leen lépp ne leen way leen mais loolu loolu dindiwul dara ci seen. loolu wala talent laa ko mën non loolu moom wala baat bu neex rek la. baat bu neex la. waaw mhm. ah, don ci don laa ko mën a dugal. Mhm. léegi nag boo amee baat bu neex am dé dégg dégg maanaam ngay ngay déglu. Mhm. ñu ne la defal lii defal lii defal lii nga def ba am ci réussit pour man loolu c'est c'est quelque chose quoi. Mm-hmm. comprendre nga. d'accord euh, par rapport ak ton boobu may wax di expliquer ça n'a rien à ak talent bi nga xam ne moom moom la gars yi di di wax quoi mais bu fekkoon ñi nga xam ne les hommes qu'il faut à la place qu'il bu fekkoon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk au ñoom ñoo war a siwal artistes yi wala ñoom ñoo war a mettre au devant de la scène artistes yi ñi ngi def seen liggéey bi war artistes yi dinañ gën a gis seen bopp. parce que des fois da gis ñu jël benn ku benn affaire bu ndaw bu bës bu xew rek ñuy jël kooku di ko invité di ko invité alors que effort boobu boo ko defoon ci beneen artiste bi nga xam ne bëgg na ko soxla na ko mm, pour man moo ëpp solo ko kon daal des jàppale muy côté média bi côté côté tamit euh, ministère beeg yooyu waaw yooyu yëpp des na. ministère bi des na jàppale artistes yi même bu fekkee moom dans ñoom ci seen xel ñi ngi jàpp. Hmm. média bi aussi. lu ne ngay gis. Mhm. lu ne ngay gis man je parle en connaissance de cause. parce que du parce que du euh, maanaam. ñuy seen clip ñu teg ko da ngeen di am na ñi nga xam ne dañuy fay. Hmm. man am na ñi nga xam ne dañuy fay mais man wax dëgg fa yàlla du ma fay. amaana ay jamono euh, mësuma fay nag wax dëgg fa yàlla pour ñu teg sama clip mais pour ma am ay émission moom mës naa fay. te dootuma ko defate sa carrière nag euh, am nga featuring yu bëri def nga ko ak artiste euh, bien vrai que public bu mag bi xamaguñ la bu baax a baax. mais mhm. teewul am nga teel nga am ouverture mhm. di di invité ay artistes euh, si say si say si say morceau di former ay xale aussi. Mhm. lan moo la dugal ci loolu lu tax ouverture boobu noonu. waaw man da la liggéeyoo yow si sa personnage pour ñu gën laa xam. ok xam nga musique partage la musique rek partage la. parce que tu fais des sons tu le partages au aux, gens au grand public ñoom ñu koy déglu donc partage boobu dafa war a yaatu fépp man dama juddoo dakaar mais Diourbel laa yaroo fa laa màggee je me plus Diourbel waa bawal bawal laa te foofu musique bi def fa métti on se débrouille on se décarcasse pour pour pour dañ daan juge Dakar Diourbel ba Dakar di def son di fay di di jaay sunuy yëreeg sunuy daal di kii mës maa ngi fàttaliku mës naa ñëw studio laay jaañ prise bay ñibbi amuñu oto ay agresseur kar ñu naroon ñu àndil foofu problème mais boobu dama tuuti woon man la ñu yërëmoon sax moo tax ñu baal ñu nañ dem leen fanaan ci kii léegi loolu ma dund noonu bugguma sama rakk yi dund ko te man maa nekk nit ka nga xam ne euh, dama am dama am kii ci talant man su ma gisee talant rek damay bëgg kut ko kut ma dugal ci sama loxo xaaruma ci dara mais damay bëgg ma ab am benn apport bu bu ma ci appui bu ma ci def mhm. pour pour pour kooku dem même man su ma demul wala su ma siwul ñi ñi xam ma Sénégal ça m'importe peu l'essentiel sama talent kenn du ko werante fu ma woyee kenn du ko werante su ma su ma déggee musique su ma ne laa kii mën na rek mën na parce que bi bi bi bi may jël concours Nescafé African Revolution di teewal Sénégal en 2010 parmi 1000 groupes au Sénégal ma jël première parmi mille groupes en Afrique ma jël troisième am am trophée en bronze ñu logé ñu hôtel des Almadies may toog ak Tiken Jah Fakoly di reerandoo ak moom Mewey Tufaan boobu gisoon naa le les portes du du succès ma gis lan la star di dund bi ma demee ma delluwaat ci xuut bi c'est comme si que yàlla daf ma ne demal nga gis nga boo boo réussir rek di nga amaat lii léegi demal nga liggéeyaat ma ñibbisee dama dem jàngi école nationale des arts ma jàng musique xam noti xam ba am sama diplôme en musique en médaille ma am médaille de solfège mm. donc man du ma waxantu ci musique xam naa musique ba pare di ko def yaa ngi dégg su ma gisee talant ak ku ma mën a yokk xam-xam comme ni ma nit ñi doon yokkee xam-xam comme awari ni ma doon yokkee xam-xam comme buba kiriku ni ma doon yokkee xam-xam déggati ay grand yi nga xam ne dañu respecté sama talant xam li ma am xam li ma doon donc keneen bu taxawee fële ñàkk xam musique wala nga ne ma doo invité wala nga ne defaluma dara Sénégal ça m'importe peu comme man li ma la sama yoon laa ne tôt ou tard tôt ou tard dama ko gëm dinaa dépasser état bi du question ci talent moo ma koy dépasser lo parce que talent bi mu ngi fi ba pare. Mhm. donc visibilité rek moo des te incha allahu rabbi. Euh, ci ci benn son boobu sax dama ci arrêté ci benn son boo xam ne cover nga ko defoon euh, maa ngi dee boo xam ne cover boobu euh, man mën naa wax meilleur cover ci son bi yow yaa ko def ci son boobu nu traduire ko. tout son boobu lan moo taxoon parce que dañuy wax ne yow sa cover moo dàq sa son. Mhm. lu tax. man du may def cover loolu du ma ko tuddee cover sax remix laa ko tuddee. remix parce que cover mooy nga jël laa même sos bi waa def nga defaat ko comprendre nga. alors que remix mooy nga jël waa ji li mu def nga defee ko neneen. Mhm. man papi dama ko xam dafa def son bi son bi nice ñu waxtaan Instagram xam nga ma ne ko son bi dama ko like bi dama koy defaat mu ne ma son bi defaat ko saa ma ferait plaisir quoi après ma. ma mu seetaan sama son bu ma defoon Ndeye mari Ndiaye Gawlo comprendre nga euh, après mu ne ma sa bi tamit dafa nice léegi ma jël son bi traduire ko en wolof traduire ko en wolof way ko affaire bi jékki-jékki rek. def bëm léegi nag loolu mbiru mbiru mbiru. parce que indiwaat loolu indiwoon na coow. Mhm. après nga dem nga ne yow mm, ko. Mhm. nga ne non ko njëkk ëpp la ci vue kaas boobu noonu taxulu sénégalais yi gën xaw la standby am. non man kaasu moo woon sax. ah du kaas man kaasu moo woon boo xoolee sama interview du début à la fin. Hmm. Euh, nekkuma woon di kaas naan dafa jël sama son wala genre dama doon wax rek man joxuma ko son bi parce que dafa amoon benn fausse information bu doon daw comme quoi que man maa jël son bi jox ko ko alors que man ki ma jox son bi damaa am accord ba pare. man dama doon setal sama der mais moom artiste la sama rakk la war na gis ma def benn affaire bu nice mu jëlaat ko def ko te pour dindi sax wax ju bëri ji sax moom soo ko xam na dama ñëw ba mariage am woyal ko xam nga su ma nekkoon benn ka nga xam ne damay rancunier wala dara duma def loolu dama dem ba mariage am woyal ko bu ma gisee sax dafa tiit ma ne ko loo yow loo bëgg si man boo ko amul ci yow la te ba léegi ñu ngi déggante sama rakk la peut-être ci loolu lañ waroon xamante xamante nañ ci on garde les contacts am nañ affaire yu nice ñu ngi koy kii te man maam ak loolu quoi parce que son bi moomuma ko du sama son même bu fekkee sama sama parole la jël ak affaire yooyu. waaw moomu ma ko parce que am na ku ko way ba pare kooku moom moom son bi kooku bu dee tooñ day am wala dara kooku lañ tooñ mais man. juste que je voulais pas qu'on utilise mon pour wax pour ah, via loolu pour kii parce que tamit satal sa der ci ci jaamu yàlla la bokk te duma bàyyi benn mbindeef buy kii que yi ñoo comprendre woon may leeral. est-ce que du leen tardé un peu ngeen créer seen benn affaire comme son boobu mais bien vrai que papi moo ko way mais yow da def sa lyrics bopp. Mhm. def son bi mu nice est-ce que loolu du leen tardé euh, ku siiw ñëw jël son bi. accaparé ko ñu yaakaar ne moom moo ko way parce que daloo na fi lës diwaan ci ci mhm. problème mhm. génnegul clip bi am ku jël génne clip bi def def def kii bi ba euh, nombre de fi bi kooku lañ gën gën a xam après mu doogee génne clip bi moom waaw mais est-ce que loolu du leen porter préjudice am amateurisme la rek bi daw Sénégal xam nga fii ñun amateurisme bi def ci ëpp parce que bu dee am nga entourage bu kuul ak ñi nga xam ne xam nañ ñi ngi ci milieu bi te xam nañ fi ñu war a jaar man ñemewu ma jël son jaamur waay ko sans pour autant ma ma ma ma aviser nit ki nag fierté la am ku siw wala am benn kii nga def sa benn affaire ba pare mu like ko ba jël ko defaat ko loolu mbégte rek lañ ci mën a am. Mhm. mais boo koy def def ko ci moment bi nga xam ne kooku pare na ci promo ba pare mhm. moom def na ba nit ñi xam ne moom moo ko def ba pare soo koy defaat bu boobaa ci lay ëpp sens quoi. Mhm. ci moom dina ci am respect dina ci am fierté yow it di nga ci amaat beneen buzz di nga ci amaat. li nga ci bëgg quoi ku nekk am ci li nga ci war a am. peut-être amateurisme bii daw Sénégal moo waral loolu mais man nit ku ma def loolu moom wax dëgg fa yàlla duma la ci topp parce que man lu ma xas a génnee ba ba pare ba nit way ci kii ci boo demee YouTube di gis ne diw moo moom bi diw heure bii la ko dugal bis sàngam la ko dugal donc euh, man liggéey laa gën a xam quoi que que que que kii parce que man mooy sama liggéey damay de lyriciste laa damay bind damay top def top damay way damay defar instrumental damay mixé sama son yëpp maay defal lépp sama bopp maay defal lépp sama bopp xaaruma kenn ci len damay indépendant te dama ko yàgg a xeex ndax bañ ku ma yab bañ may dem ñu may jànni fenn wala may dem ñu may def lu ma neexul wala ñu may liggéeyal lu ma neexul moo tax chaque jour damay defaral sama bopp bu ma paree déglulooñ borom nopp yi buñ nee baaxul ma defaraat buñ nee baax na ma génnee ndax ñi ma koy dégluloo wala ñi may ñi may conseillé ci côté boobu ñu dëgër bopp lañ ci musique maanaam pour nga satisfaire leen yombul. day métti voilà est-ce que mës nga dund du la métti nag ci musique ba nga ne est-ce que du bàyyi a que mës nañ la def geste boo xam ne tey apprécié woo ko parce que si woo peut bari na man def nañ ma lu bari. ci musique ban moo la gën a marqué boo xam ne nag euh, métti na la ba tey dalay booster sax pour nga gën a yëg kaw. <laughs> Euh, non man du may bëgg di wax quoi. côté boobu damay bëgg xaar ba le moment venu ma wax. mais exemple hmm. des fois di nga am benn artiste boo bëgg a defal son wala ay nit di réclamer seen featuring artiste bi jàpp ne ma moo la gën a siiw wala moo la gën a kii ba du def ak yow son boobu. Ah, ah, waaw bëri na am na ña xam ne ay artistes artistes dëgg bu ñemee warul. warul daw featuring xaw ma nag comprendre am na ñu bëri dañ dañ koy refuser ci seen ñàkk a mën moo tax ñuy refuser featuring ah wala ci seen. bañ nga daaneel bañ wóolu man ku ma invité ci son ma rey la ba nga dee bu fekkee ci ci esprit boobu ngay ci esprit boobu ngay bëgg a defee man son mais bu fekkee da koy def ci esprit dama bëgg a def ak yow son rek parce que dama bëgg a def ak yow son parce que talent moo ñu boole bu boobaa doo gis kii rey na ma ci son bi wala keex kii na ma ci son bi xaw ma nag comprendre nga fi may waxee. Ah, mais gars fii bu ñuy def nit featuring c'est comme si que dañuy def ñoom match. concours alors que featuring du loolu featuring yëgante la dangay ngay yëg nit ki mu yëg la ngeen def son son bi nice yéen ñaar ñëpp gañe ci mais esprit d'ouverture boobu noonu esprit concurrence boobu moom la gars yi di ragal moo tax du ñu def ñoom fit man man na dama xam sama bopp. est mooy defee noonu parce que benn. benn public moo am Sénégal dañ naan non kii waa ji. waaw mais benn public moo am Sénégal kii déglu diw mooy déglu kee mooy déglu kee mooy déglu kii xas diw mooy xas kee mooy xas kee mooy xas kee ñoom mouvance la ñuy ànd lu kenn wax loolu la ñëpp àndandoo di wax. Mm-hmm. donc man public bi man def man public bi lenn laa seq ak ñoom di def lu neex ci seen nopp di leen ko jox mais booy déglu seeni conseil parfois chaque fois chaque fois. amaana du ma ne ñëpp nag mais la plupart dinañ la euh, conduire en erreur en erreur parce que di nga réagir peut-être noo waroon warul woon réagir wala nga wax loo warul wax te micro euh, télé wala image loo fi wax dootul deñ moo tax man je préfère liñ ma mës a def ci musique ma def ko doole pour avancer. te kan moo du ma ma ma du ma tudd tur. ah doo <laughs> l' <laughs> essentiel. damay sal après moom buñ ko invité ne ko lu tax mu remercié la. damay man damay. non kon kon dama koy may buzz. déedéet barke Serigne Sall. waaw peut être mais du ci man la koy. jaar wala jigéen parce que jigéen ñi nee ñoo gën <laughs> man wax dëgg fa yàlla jigéen ñi ma xam ci musique ñi kii. bariwul bariwul sax du ñaaraguma jigéen. à part à part kii euh, kii nu mu tuddati euh, OMG. Mhm. waxaguma jigéen ñooñ def featuring. ma nga xam ne ci man la jóge ko xaw ma nag comprendre wala peut-être fàtte naa ko mais euh, OMG daal leer na ma ne man mës naa ko bëggoon def ak moom featuring. Mhm. amagul nag mais du ci moom du ci man peut-être le moment bi moo ñëwagul mais moom refusé wu lu ma woon wax dëgg fa yàlla. wala ku la refusé kan la góor la kon. waaw peut-être góor la wala mbalaxmaan am na rappeur am na mbalaxmaan bëri na du benn parce que fii ngaaka ñëw na ñu du question daf may métti mais la pour ñu xam non jaru ko nañ nañ bàyyi mu sedd bis dina jot man ma bis bu bu ma àggee fi ma war a àgg man maa lay message wax la tur bi wala nga woowaat ma fi ma wax la ko mais comme defaguma fi dara parce que fi ngay wax ñu ne la ah yow nga teel a wax noppil affaire yooyu noonu heure wax jotagul bis bu ma li may wut ci musique Galsen nii li ma bëgg a defal musique Galsen bis bu ma fa àggee bu boobaa heure wax dina jot bu boobaa dinaa wax incha allahu rabbi. waa damay def voilà damay def ala Aliou Cissé. ba wax jotee nga wax mais instant yi nii xam nga boo waxee pour man c'est très parce que tamit defaguma fi dara lu tax ñu may may wax tamit. Mhm. waaw man damay liggéey tojaguma fenn comme ni ko gars yi di waxee même bu fekkee xam naa li ma am xam naa sama talent. xam naa li ma defalul Sénégal mais xeeb naa li ma defal Sénégal. Mm-hmm. xaw ma nag comprendre nga fu may waxee man lu ma def rek fàtte naa ko parce que man moom lu ma mës a génnee it la boo xoolee sama YouTube nga dugg nga xool musuma génnee son bu naqari. Mm-hmm. son bu ñi ne nii lii baaxul chaque jour ay découverte l'essentiel chaque jour ci commentaire yi dinaa gis waa kii fu mu nekkoon. Mm-hmm. kon am naa benn découverte foofu noonu bu bees léegi nag découverte yooyu bu demee ba bari peut-être Sénégal ñëpp dinañ la xam mais man ndaanaan yëpp xam nañ ma ta ndaanaan yi sax dañ may woo parfois imaginer ku toll ni DJ Awadi kenn du ko ndaatable saa bu génnee dara dina ma woo ne ma déglul xoolal lii lan nga ci xalaat loolu rek pour man fierté la respect la te loolu rek doy na ma quoi daf may gën a yokk jom ma gën a góorgóorlu ci sama musique man ci dalal la tey euh, loo bëggoon waaw man li may wax euh, sama sama fans ñooñu ku ma seetaan ci interview bi nga gis ne kii war naa dem déglu ay son ah non nañ dem déglu demal nga déglu te boo dégloo bu fekkee li may def doy na la nga abonné parce que ci ci ci loolu rek ngeen mën a. jàppale artiste jàppale artiste bi may ko doole du xaalis bu ngeen koy jox. Mm-hmm. du dara mais benn benn touche booy bës. Euh, abonné abonné loolu dafa pour man c'est quelque chose quoi cloche de notification beeg affaire yooyu loolu pour man c'est quelque chose. Euh, bu ko bu ko ñëpp def ñu presque man dama naan sax waa Jurbel man waa Jurbel rek. comme Jurbel bi ma dëkk ñoom ñëpp bu ñu booloo woon abonné ci sama chaîne rek léegi nga dégg ma ma léegi nga dégg Sénégal ñëpp dégg ma parce que loolu rek dina ma may benn doole ba nga xam ne euh, c'est quelque chose quoi parce que Instagram am naa fa. benn assise ndax am naa 43000 abo abonné foofu ah, noonu waaw war na mën a yegg 100000 surtout YouTube bi man j'insiste ci YouTube bi ak plateforme de streaming yi maanaam ay Deezer iTunes kii yooyu parce que foofu moo la gën a mën a moo la ah, gën a mën a jaay ci ci ci ci au niveau international quoi mm-hmm. man sama xeex yëpp lenn la jël musique Sénégal exporté ko jaay ko parce que dama am genre musical bu ma créé bu ñu naan SN Sénégal bit mooy ma jël instrument traditionnel ak rythme ethnique bu Sénégal di ko patché ak musique moderne pour jéem ko jaay ba ma koy def kenn defu ko peut-être am nañ léegi ñu ko commencé di def di jël ay sabar di ko def seen kii mais man ba ma koy def yàgg na te ba ma koy def jamono yooyu dañ daan saaga ñaka daan def mais léegi nii moo lay wan man maa ngi woon ca dëgg ba ma ko doon def man maa ne man maa ngi woon ci dëgg parce que léegi ñëpp a koy def loolu rek pour man c'est quelque chose gars yi ma leen di wax ñu ñu ñu ñu ñëw suivre El Maestro le Kangam fu ngeen dem ci ci sama plateforme yi loolu moo ci ne El Maestro le Kangam. Kang Instagram Facebook Instagram Facebook avec K A G H A M. El Maestro le Kangam. ñu abonné tamit ñu abonné ci YouTube bi. wax leen ne maestro am na ay surprise yeneen yu muy yu muy yu muy yu muy andi pour yéen la famille ou la mort je vaincrai incha allahu rabbi. incha allah merci beaucoup. merci beaucoup Aïda.